إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala di ko dimbali ko di ko ñaan mu jéggal ñu suñu rëcc rëcc bàkkaar yàlla miy jubal ku ko soob yàlla nu yàlla jubal waaye yàlla lépp ku mu seetaan tig maandu teen ba nga sànq amul kenn ku la mën a jubalaat ñuy seede ni buur boobu di allah subhanahu wa taala amul kenn ko yoo jaamu te def kudul moom jurul kenn te kenn juru ko du nawle ci kenn ñuy seede suñu sang muhammad alayhi salaatu wa salaam jaamam la ndawam la tànneefam la xaytam la yal na ci yàlla xayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam gi rafetal boobu bis penc di taxaw ñuy dénk suñu bopp bokki leen dénk ragal yàlla nim ñu ko dénkee ci alquran nee na ay yéen gaay yu gëm na ngeen ma ragal dëgg-dëgg ragal rik bu leen faat mukk bu dul da ngeen wommatu doon ay jullit mbokk yi suñu xutbay tey bi iznillahi taala dañ koy sof si suñu xutba yi weesu muy jaamu yàlla bu mag bi ñu dëgmal muy alxaj suñu ujaaj yi nekk ci wàccaay yàlla na yàlla yombal leen ba ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm ci yàlla defal leen xajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zanban marfuran wa amalan salihan mutaqabbala njëkk ñu xamle woon ni lii di alxaj
ruknun min arkaanil islam ponk la ci ponk islaam yi juróom yi ginnaaw shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah wa iqaami salaa wa itaami zaka wa sawmu ramadan wa hajjul bayt yàlla def ko mu nekk benn yoon nag ci sa dund farata liman istataa ilayhi sabila yonente bi alayhi salatu wasalam bokk ci ay xadis lii di aj ñu waxoon ni am na ay shuruutu wujubihi ay charte yi tax aj nekk lu war mu bokkoon ci ni faw nga nekk jullit ak islam fala tajibu ala alkafir aw fala yajibu ala alkafir al aqlu nga doon koo xamante ni ko am xel nga koo xamante ni sa xel dafa manqué boo ko aj waru ko ñu waxoon ni al buluux ci majorité bokk na ci nga xamante ni charte yi day wat ci kawam bu majoré xale su ajee aj ga dinañ ko nangul waaye aj wàccagu ko moom it al xurru ñoo yem mooy koo xamante ni jaam la kooku bu ajee aj bi dinañ ko nangu waaye aj wàcc bu ko kon ki ar ki bokk ci charte yi tax aj war la mooy alxurriya mooy nga nekk gor ñu waxoon ba tey al istitaatu muy mën bi am lu la yóbbu indi la nga dem doo fa tumuraanke am loo bàyyi sa ginnaaw ànd ak nga wér ñu waxoon ni aj ponk gi mu doon ponk ci islam yi juróom yi noonu la amee ay ponkam moom aj bi ci jiitu woon ñu wax ko mooy al ihraamu mooy armal bi ngay armal ca miiqa ba fa ñu yéenee mu bokk ci ponk yi ñu waxoon ni ba tey ci ponki aj la boo ko bàyyee sa aj day manqué du mat ak tawaaful ifaada mooy tawaaf bi ñuy tawaaf kaaba ga ci bisu tabaski ba bisu fukkeelu fan bi wala ca bisu yu topp ñu waxoon ba tey bokk na ci ponk ya as-sa'y bayna safa wal marwa mooy daw bi ngay daw safa ak marwa dafa bokk ci ponk aj yi boo ko deful sa aj matul mu bokkoon ci ponk yi muy ñeenteel bi bunt bi al wuquf bi arafa mooy taxawaayu arafa ñeent yi mooy ponk yi nga xamante ni ci ponki aj képp ku ko bàyyi sa aj matul ñu waxoon ba tey ci xutba yu weesu anwaarul xaj muy kii aji ban xeetu aj la war a tànn képp kuy aji war nga ne man aju sangam laa tànn muy ñett atamattu muy umra boo dul lëkkale aj ñaareel bi di alqiran muy umra ak aj bu ñu lëkkale al ifraadu di aju kese bu àndul ak umra muy ñetti anwaar mbokk yi lii di aj ñu waxoon ci nga xamante ni moo jël benn ci anwaawul xaj yi ni am na ay xutuwaat ay jéego yoo xamante ni bu mu jóge ci bii ci bee la ciy teg bu mu jóge ci bii bii la ciy teg ak lam fa war a def ak lam fa war a wax bu ñu tënkee ci la nga xamante ni ka jël tamattu ak ki jël xiiraan ak ki tànn ifraat ñoom ñett la ñuy bokkandoo def ko ca njëlbéen bi mooy al ihraam mu yéene ñun ñëpp ñoo koy bokkandoo def dafa bokk ci ponk yi kenn ku ci nekk nag ak la nga yéene kii def tamattu moom yéeneem da koy wax ca kaw labbayka allahumma umratan mutamattian biha ila al hajj kooku loolu mooy yéene kii yéene xiiraan ni labbayka allahumma hajjan wa umratan da leen di rëkkale kii def ifraat ni labbayka allahumma hajjan loolu ñun ñëpp ku ci nekk ñi nga yéene soo ko dugg nag ci aj bi ci say labbayka say talbiya ñaareelu étape bi nag muy yawmu taanin weeru aj ci juróom ñetteelu fan la ki defoon tamattu ak ki defoon qiiraan ak ki tànn ifraat ñoom ñett buñ ne jëpp màkka ba defandoo tawaaful qudum ki def tamattu kooku dafay daw safaak marwa watu ngir summeeku ci armal bi ci umra bi nga xamante ni moom la tànn gëmbul lëkkale ak aj waaye ki nga xamante ne mooy ki def ki tànn qiiraan ak ifraat ginnaaw bi ñu defee seen tawaaful qudum tawaaful qudum mooy tawaaf bu ñuy nuyoo kaaba ñoom ñaar bu ñu noppee ba daw safa ak marwa du ñu summi seeni armal dañuy des ci seeni armal ci yowmu saamin bi muy juróom ñetteelu fan bi ñoom ñépp dañuy jóge màkka dem mun na ñu waxoon bu fa demee salaatu rubaa yi muy julli yi ñuy julli ñeenti rakka bu ci nekk dañ koy wàññi waaye ca waxtoom lañ koy julli suba ak timis kenn du ko wàññi bu ñu jógee foofu ci mun na ci yowmu saamin huitième jour bi bu ñu xëyee ñoom ñëpp ñu nga jëm arafa ci ponk bi nga xamante ni ci ponk aj yi la bokk bu ko deful sa aj matul mu yowmu taasi neuvième jour ñoom ñëpp dañuy dëgmal arafa amul kenn kuy wuute ci arafa ndax dafa bokk ci ponk yi nga xamante ni mooy ponk aj bu ñu jógee arafa ca arafa ga tisbaar bi ak tàkkusaan bi leen fay fekk dañ koy julli def ko alqasr wal jam dañ koy wàññi dañuy wàññi tisbaar bi wàññi tàkkusaan bi boole leen ci tisbaar bi muy jamu taqdim timis fa la leen di fekk waaye duñ ko fa jullee ñoom ñëpp fa la ñuy bawoo ci timis ga uti ji fee di musdalifa musdalifa fa la ñuy forijee xeer yi ñu war a sànni ji ci jamrat ya ñu jëm ca kanam kon musdalifa ci guddi fukkeelu fan ba lañ fay wàcc ñoom timis ba ñu julliwul woon ca arafa moom la ñuy julli ca musdalifa boole ko géegi wàññi géegi def ko ñaari rakka for fa seeni xeer waxoon nañ xeer yi dafay toll ci soixante dix xeer la ñuy for soixante dix yi set yu njëkk yi bu ñu jógee ca fii di musdalifa ca ëllëg sa ba mu demee ba ca shuruq jant bi tàmbalee fenk ñu dem uti ji fee di jamra pour sànni jamratul aqaba al kubra sànni juróom-ñaari xeer yi ñuy sànni ca mbalka mu mag ba waxoon nañu bu ñuy sànni kàddu yi ci ànd mooy allahu akbar di sànni say xeer ba juróom-ñaari mag ci bisu fukkeel bi mooy nekk bisu tabaski ginnaaw xeeree ñu sànni muy jamra yi ki defoon ki tànn tamatto ak ki tànn xiiraan ñoom ñaar kenn ku ci nekk xëj yi daf lay war da ngay tabaski da nga fay tuur deret te bis boobu ci la ñuy wat seen karaw wàññi ko wala wat doom seen muxalliqiina ruusakum wa muqassirin ci bis boobu ku mu jàppandal ci yow ca ngay def tawaaful ifaada muy beneen ponk bi nga xam te ne soo ko defulee sa aj matul kon tabaski bis boobu mooy bis bu ëpp liggéey ci aj bi ñuy bàyyiloo xel na nii ki defoon ki tànnoon xiiraan ak ki tànnoon ifraat bi ñu ñëwee ci tawaaful qudum ñu wër kaaba bi juróom-ñaari yoon wër ko di daw daw safa ak marwa comme ki def tamattu ni mu ko defee woon ñoom bi ñu ñëwee ci tawaaful ifaada gi du ñu dawaat safa ak marwa ndax dawal nañ ko ba pare waaye ku ko dawul woon ca tawaaful qudum ga boo ñëwee ci tawaaful ifaada gi da ngay daw safa ak marwa ginnaaw bi nga tawaafee tawaaful ifaada muy fukkeelu fan bi ci bisu tabaski bi li ci topp nag mooy ayyaamu tashriq mooy ñetti fan yu nii nii mooy onzième jour douzième jour treizième jour ñetti fan yooyu noonu kenn du ko des màkkatu mukarram mun na leen di fekk ndax dañuy sànni 63 xeer yi ñuy war a sànni ginnaaw bi ñu sànnee set ya ci bisu fukkeel bi ci jamaratul aqaba al kubra xeer dañuy sànni ca ñetti fan yooyu chaque jour 21 xeer ngay jël boo demee ba ca jamra ga nga jàmm tàmbalee ci as-sughra bu ndaw ba mbalka mu ndaw ba sànni fa juróom-ñaar déplacé wu dem ci al-wusta sànni fa yeneen juróom-ñaar dem ci al-kubra sànni fa sa juróom-ñaar wëlbatiku muy 21 xeer boo ko defee ñetti fan yi am nga 63 xeer yoo sànni nga boole ko set yi nga sànni woon muy 70 xeer yi nga war a for ca Muzdalifa aqulu ma sami'tu wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala di julli di salmal ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ñu ngi seede ne suñu sang Muhammad alayhi salatu wasalaam yàlla du wàccoon beneen yonent ginnaaw moom yàlla na yàlla julli di salmal ci moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam boo ci di taxaw mbokk yi ci ginnaaw ay yaamu tashriq yi muy ñetti fan dañuy toog ca mun na jóge fa delluwaat mag la lay dese ci aj ji mooy tawaaful wida mooy tawaaf bi ngay tàggoo kaaba mu nekk li nga war a mujje tàggu ginnaaw bi nga paree say manasikal xaj yépp comme ni nga njëkkeewul ñëw def sa tawaaful xudum nuyu si ko ñetti tawaaf yi nii mbokk yi yoo xamante ni moom mooy tawaaf yi am yi ñu gis ci téere yi tawaaful qudum mooy bi ngay nuyoo kaaba gi mooy tolloog taxiyatul masjid wax nañ ko léegi tawaaful ifaada mooy ponk bi bi ngay def ci bisub tabaski wala boo jugee mun a tawaaful wida mooy bi ngay tàggatoo ñetteel bi ci borom xam-xam yi bokk mooy tawaaful tatawwu tawaaful coobare man dama am yéene ni waxtu yépp insha allahu taala makka day tàng ci ci bëccëg gi du du du ma jullee hôtel mbokk yi bokk na ci li ñuy bàyyiloo xel ku jaay ci ni aj moom bakkan yóbbu fa kenn jàngu yàlla moom fa yóbbu hôtel yi sedd na lool xaw naa dàq sax suñu yenn kër yi waaye waxtu jullee nañ ko jullee ci jàkka léeg-léeg ñun la fii yëpp ci xaddu xaram bi la bokk maanaam foofu jullee rek am nga dix mille prières ba ci biir hôtel bi fii sax mbokk yi loolu moom islam jàngale ko te jàkka ja bu dee nag tisbaar bi ak tàkkusaan bi ak naaj bi ni ngay tàngee bu dee sa hôtel dafa sore ci xaram ba jullee ci jàkka yi nga xam ne ñoo la wër Makka jàkka dong la jàkka yi kese la wante nga ne timis ak gee damaa bëgg mu fekk ma ci xaram ba maa ngi ñëw ci tawaafu tatawwa comme xaram bi mataaf bi mooy li wër kaaba bi amul kenn koo xamante ni boo solul yëre armal di góor nga mën fa am accès loolu ci organisation la nag yow nag da nga am yéene dugg ci mataaf bi mbokk yi ñu ngi koy tuddee léegi dagg ticket maanaam da ngay sol tubay te ku xarmal waroo sol tubay am ñoo xam dañuy sol yëre bu nu ñëw te ku xarma wala sol yëre bu ñëw bu lay góor bi woddu taraxlaay pour mën a dugg ci mataaf la ñuy defi ta tawaaful tawaafu tatawu alay wax bokkul ak tawaaful qudum bokkul ak tawaaful wida bokkul ak tawaaful ifaada mbokk yi li ñu tëjee suñu xutba mooy maqaasidul xaj aj lan mooy jubluwaay mbokk yi borom bi subhaanahu wa taala diglewul lenn ci hasard lu mu digle rek am na ay ahdaaf yuy tax mu koy digle aj dafay dëgëral lii di tawxiid muy kennal yàlla subhanahu wa taala mbokk yi ñu xool aj bi ginnaaw bi nga summi ko foo lenn lu ñu ñëw bu dee góor wodd taraflaay kooku moom war nga yëg sa biir xol ni yow anta abdullah jaamu yàlla kàddu yi ngay wax muy labbayk allahuma labbayk wis naa la yow borom bi subhanahu wa taala wis naa la labbayka la sharika laka labbayk amul kenn kuñ la war a bokkaaleel inna alhamda lii di cant wal mulk ak nguur ak a neexal bu ñu koy wax nga nekk président bu sol inna alhamda wa ni'mata lii di sant ak i xéewal yow ñu defal lépp ñu war koo sant amul kenn ku war a sant ku ko war a sant ku yow nguurit amul kenn ku nguuram di sax ku dul yow yàlla subhanahu wa taala ndax yow yaay maalikal mulk tuuti mulk man tasha wa tanziu al mulk man tasha wa tuizzu man tasha wa tudillu man tasha tawxid bi ki nga xamante ne dafa armalu da ko war a yëg ci kennal boroomam subhanahu wa taala aj mbokk yi dafa bokk ci mbokk islaam yi wante li ko yàlla indi ci alquran ci imran indi ko ci baqara indi ko ci maida indi ko ci bërëb yu bëri dafa wëlbati ko tuddal ko suuratan kaamilan bis bismi suuratul hajj nga xam ne jaamu yàlla jaamu yàlla bu màgg la waaye lay ruuxam dëgg bokk na ci tudd yàlla fazkurullah fu ko yàlla tudd rek fazkurullah tuddan yàlla booy tawaaf yaa ngi tudd yàlla booy def as-sa'i bayna safa wal marwa yaa ngi tudd yàlla al wuqufu bi arafa yaa ngi tudd yàlla mun na yaa ngi tudd yàlla foo mën a nekk yaa ngi tudd yàlla kon lii di xaj dafa bokk ci ay maqasidam ay jubluwaayam mooy taxqiqu tawxid dafay dëgëral li nga xam te ne moom mooy pas-pas doomu yàlla ci kenn pas-pas doomu doomu aadama ci kennal borom bi subhanahu wa taala bokk na ci maqasidul xaj yi tazkiyatu nafs aj day fóot bakkan ci réew mbokk yi foo yi dëgmal foo xamante ne nationalité yëpp a fa nekk ci àdduna bi ñëpp di ay jullit innama muminuna ixwa foofu bul ma laal amu fa puusal ni amu fa la fa am mooy israaxu sadr yaatal sa dënn ba képp ku la gaañ nga xam ne kii tayu ko fa man farada fihinna alxajj fala rafata wala fusuqa wala jidaala fi lxajj yàlla mi farataal ci ñun aj moo ci tere rafas fusuq jiraan amul xuloo amul werante amul def lenn lu ñaaw lu jur bàkkaar yàlla mu ne ma tafalu min xayrin yaalamuhu llah lépp lu ngeen fa def rek ci lu baax yàlla yi xam na ko dafa bokk ci maqaasidul xaj yi mooy benn la bi ñu benn la jullit ñi boole leen dajale leen ci benn bërëb ñuy tawaafandoo di taxawandoo ci benn sàkk di julli di dawandoo diggante Safa ak Marwa di nekkandoo Musdalifa tumuran bi bu la ay nelaw dabee ci ay xeer ngay tëdd mbokk yi lii di aj dafa bokk ci ay mafasidam xamle gi nga xamante moom lay xamle ak benn la jullit bi comme jàkka ni muy bennalee ak di boole ak di dajale doomu aadama yi ñu jullit ni ngir ñu xamante suñu xujaaj yàlla yàlla dafa leen xajjan mabruran yàlla defal leen saayan mashkuran yàlla defal leen zanban maghfuran yàlla defal leen amalan salihan mutaqabbala yàlla képp koo xamante ni mës ngaa aji yal na yàlla defal la sa aj mu nekk xajjan mabruran képp ku nekk ci waaj di dem yàlla yàlla defal la boo dellu si waat nga set bëcc ci bàkkaar comme ni ko alayhi salatu wasalaam jàngalee képp ku demagul yàlla na yàlla mottali la ba nga dem ca baytullahi alxaram ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك السبيل اللهم اهدنا إلى صراطك السبيل اللهم اهدنا إلى صراطك السبيل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله